ca mbokk internetu Dakar Instant ñu leen di ziar tey ñu ci bés boo xamante ne bésu tristesse la bés boo xam ne donc euh, Sénégal àdduna wërngal këpp tey ñëpp a yeewoo ci li nga xamante moo di naqar kii génn àdduna nag di ki nga xamante ne moom moo di moom moo di euh, moomi Dany Gueye di soxna ci Bougane Gueye yi Dany waaye aussi nekk ci doom ki nga xam ne mooy le feu Thione Ballago Seck nekk doom ci ki nga xamante ne moo di Fatou Kiné Diouf Diaga mu génn àdduna donc mu doon nouvelle bu triste gannaaw ba mu tëddee feebar nag tëdd bu yàgg fële ca France ba mu ñibbisee léegi yàggul ay fan la def génn àdduna nag tey euh, tout la presse national àdduna wërgal képp Sénégal yeewoo nakar bi ba tax na tey gis ngeen toute la presse tey ñu ci terrain bi alors dañoo jógee fi nga xamante ne nag mooy këram di cité kër góor gi ñëpp xam nañ ne Momy Dany Guèye bu président Bougane Guèye Dany fii la dëkk donc dañoo jóge këram ni dem fële nga xamante ne mooy Ouest Foire ay waajuram nekk di Kiné Diouf Diaga donc ci mbokk Ouest Foire lañ koy yeesalee defar ko daal koy mëna jébal boromam fële nga xamante ne moom mooy te cimetière bu yoss ci côté wayturam bu ko ko bu Thione Ballago alors fofu nag lañ ko fas yéene denc donc ñoo ni nak en route Dakar instant mi ngi en route ànd ak kilifa yi nga xamante ne ñoom lañ fekk fi ci kër ak bugan ngey dani ànd ak Mbàkke Mbàkke yi ànd ak sang yi ànd ak famille El Hadj malik si képp koo xamante ne rek tey pare sa diine nga tey yaa ngi fi nga xamante moom moo di uh, cité kër góor gi fas yéene saafante ak Bougane Gueye Dany fas yéene moom ci tiis bi nga xamante ni suñu a ba tax na tey gis ngeen toute la presse est là tey presse bi yëpp mi ngi fii ñuy dem fële nga xamante ne moom moo di uh, Ouest Foire ca morgue Ouest Foire ba fas yéene eh, eh, jébbal bi nga xamante ni moo di Bougane Gueye boromam ndax ne gis nga li nga xamante ne tey Sénégal moom lañ yeewoo doon nouvelle bu boo xamante ne amaana bi ci bari sax mënuñu ci wax waaye du ñàkk rek comme événement bu mel nii bu amee muy naqar di bànneex di tristesse du ñàkk presse bi def ci liggéeyam waaye aussi ñu def ko aussi ci anam ba mu waree def ko ci yar def ko ci teggin def ko ci discipline ndaxte aussi tamit neexul niñ nekk ci naqar nga koy filmer waaye aussi dafa doon koo xamante ne mënuñu kaa ñàkk bañ ko ko defal ndaxte defaraloon nañ ko ki nga xamante ne di woy juróom bu góor di coon ballaago Seck ba tey à Dakar instant ngi ci VDN bi ñu ngi ci VDN bi léegi ñu àgg fële nga xamante ni moo di Ouest Foire kër coon ballaago Seck Dakar ñoo ngi fi nga xamante ne mooy ca morgue bu Ouest Foire fi nga xamante ne moom la ñuy waajalee kii di Momy euh, euh, Dany Guèye bu Bougane Guèye di doom ci la fa coon ballaago Seck gis ngeen Aïda Mbodj mooy dugg noonu àndi ànd ak Malick Gakou ànd ak Ahmed Aïdara ñoom ñooy dugg noonu donc ci li nga xamante ni mooy levée du corps bi mu doon ay moment yu triste fi nga xamante ni alors moom moo di euh, ci euh, morgue bu weesu fois donc tristesse la ñuy nemmeeku ci kanamu ñëpp am na ñoo xamante ne sax ndeysaan mun nañ ne mbir mi da leen ëpp doole voilà affaire bi da leen da leen ëpp doole lool parce que ñu ngi ciy gis macha allah ma ko xewoon sànq mbàkke mbàkke ñu ngi leen di seen Mamor Mbaye borom euh, yoonu géej gi ñu ngi ci ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne tey ñëpp ngi fi rek fas yéene koo gunge këram gu mujj mu doon loo xamante ne aussi doon na lu méttee métti waaye ak lu ci ci am rek dañuy sant lu ci mënti am rek dañuy xam ne suñu borom lañ jóge te la ñuy dellu naam bu ñuy ñëw duñu tàggoo waaye itam bu lay jëlaat tamit du tàggu kenn dañ koy ñaanal rek yàlla bu ko cat jiitu ca bàmmeelam yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana firdawsi à travers seede yi nga xamante ne depuis ce ñu ngi wax nañ ko ci moom loolu ab cant la waaye itam nee nañ jigéen bu sëy rek weer ngaa roy ci loolu gis nga ñu ngi gis que li nga xamante ne Mohamed ah, di frère euh, euh, ci ci moom bi donc Mohamed Seck moo nekk noonu nekk aussi manager Wally Balago Seck ñu ngi seet aussi ki nga xamante ni moo di Cheikh Mbengue Cheikh Mbengue aussi tamit nekk goro ki nga ni moo di Balago Seck kon ci gàtt mën nañ jàpp ni tey macha allah toute la famille Seck ñu ngi fi goro yi tey ñëpp ngi fi rek fas yéene ki nga xamante ni moom moo di euh, ci li nga ni moom mooy gu mujj mu doon lu méttee méttee métti lu dur donc comme ni nga ko waxee bu ñu ko tey ñëpp a ngi fi ñëpp a ngi fi ñëpp ngi fi tey donc xam nañ ne mbir mi balaa ñoo génn fii koy koy yóbbu fële ca Yoff du yomb ndaxte courage la laaj gëm-gëm la laaj waaye ak lu ci mën ci am rek euh, dañuy delloowaat suñu xel suñu borom xam ne moom mooy dogal te nu ko neexee rek la koy defee. ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعمهم التشفيع أجمع أكتر أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقت عصاها واستقرت بها النواه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 بغار حراء بالمحصب لا أرى رفيقا سوى الهادي بي أتمتع محمد عبد الله أحمد واقبا بحب الإمام الهاشمي Thank you.